Serigne Cheikh Conté ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout la nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ciy dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram xaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du sëriñ Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi sëriñ Cheikh konte ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk. not yi ñuy topp ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen fàttali rek ñu ngi ci uh, baptême bu Babacar Seck uh, tey moom doom bu jigéen di ko ngénte ñu fekk fi magam xaritam muy Bakane Seck yaakaar naa ni bu ñu waxee ni Babacar Seck mooy ngénte doomam ñu gis Bakane Seck du ñu laajte lan moo tax dañ koy nuyu Bakane maa ngi lay ziar bu baax a baax. soxna si maa ngi leen fay maa ngi leen di ziar gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed sant sant Sénégal bi yëpp bon vraiment di ñaan yàlla yàlla dolli jàmm ci Sénégal te may ko mboolem jullit diaspora bi ah fépp fu sénégalais nekk à travers ci monde bi yëpp ñu leen di gérer fans yi yi am di jàmm yi. Babacar du sama rak sama doom la maag papaam ñoo bokk ndey baay papaam mooy taaw man maay caat sama doom mu nekk xale bu baax nag vraiment bi mu ñëwee ci Dakar man maa koy indi Dakar mais tey alhamdulilah ah, xale bu baax la xale bu am ay qualité la xale bu am kilifa la xale bu yaru la ku am personnalité la aussi di def métier am ni mu ko war a defee donte que li may wax temps samay doomu mag rek ne leen métier mi ñëpp ko mën. aussi ñun askanu géwél daf cee bëri ñoo xam ne ay royukaay lañ ba nga xam ne nekk li ma leen yor toujours rek dañ nekk ay nit ñu am yar nit ñu am dal doon artiste warul tax nga nekk ku yaafuus wala ku ñuy seen di la xeeb donc ce qui est important mooy dañoo jógee Kaolack ñëw daan si doole di ñaan yàlla ñu yoree suñuy waaju ak jaam yàlla yi ñu yàlla booleel ak jullit bu ci sa wërsëg ne et donc loolu mooy àdduna donc leneen li des nag mooy moom malheureusement moom xam na fi muy teg tànkam Babacar te xanaa ñaan yàlla yàlla yokk ko ak mbooloom jullit buy yëngu comme li muy yëngu xam nga donc képp kuy artiste te yëngu ci métier mi yàlla taxawu la te xam ne ne affaire bi méttiwul yàggul ñi ci yàlla dimbali nag na leen yàlla may xolu partagé ñu partagé ak jaamu yàlla yi après yàlla def li gën waaw. alors euh, Bakane chaque jour rek comme fi nga koy wax fi nga nekk koo xamante ne donc Bakane euh, bruit bi bariwul Bakane bu génnee bu duggaatee kenn du ko dégg euh, coow lu muy bari bari bari Sénégal duñ ci dégg Bakane pourquoi. waaw loolu dama ji sant yàlla julli ci Seydina Mohamed su may waajur aussi ak ki nga xam ne moom moo ma dugal ci musique moom day wax day liggéey lu bari wax lu ndaw muy El Hadj Baba donc moom daf maa yar pendant dix neuf ans yóbbu ma fu ne ci àdduna bi ma ku ne ci àdduna ma taxaw façon scène bu ne ci àdduna bi man gëm naa nekk taxaw naa dëkk yoo xam ne président sax taxawu fa à travers de moom. donc yàlla defal na ma loolu ba nga xam ne ne que yar bi ci moom jikko ji dal bi dañ doon def rëy suñu excès Sénégal bugg ko sax bës donc da koy yore dugal ko biir néegam xam na ne que liggéey la et donc ku mel noonu nag su la yaree donc dina am ay qualité yooyu jël donte que mënoo jël qualité yu yëpp ci moom mais dina am tuuti loo sàcc ci éducation bi mu am moom nga boole koog bii la say waajur defal nga jéem a xam ne ne que métier mi ñu ne métier pour daan doole la c'est comme li may wax comme presse bi presse bi ay noobu lañ presse bi ay nit ñu diñ lañ presse bi ay nit ñu am fulla lañ presse bi da ngay gis ne ne que ki xëy bàyyi yaayam bàyyi papaam bàyyi doomam bàyyi léppam di dox pour lu métti doomu aadama mu fësal ko ba mu loolu mën a saafarawu donc loolu nitu yàllaa koy def Eh, donte que ñëpp mënuñoo bokk yam mais loo gis ci yàlla ci àdduna am na jikko yu bokkul donc man je pense que ne nekk su la yàlla defalee nga am benn métier mooy dox donc métier moomu danga ko war a téye li tax nga nit ñi di la respecté ba tax kilifa goo wax interview mu d'accord ko c'est parce que dafa am noo war a doxee donc c'est dommage que nag Sénégal dañuy dox ci buzz mais dama naan comme question bi nga ma laaj léegi soxna si man dépassé naa fu may buzzé mhm. donc xale la mag su may maram ñoo fi nekk génération yi magante wuñ lu bari mais li may nekk nii dama ko def métier ma ko ngir buzz donc dama ko def métier ba nga xam ne ne tey album international bi ma génnee barki dem ngeen fekkee conférence de presse bi presque tey jii ci jour yi ngénte Babacar y a presque plus de deux millions et quelques personnes yu ci commentaire au niveau des États-Unis donc kon sant yàlla ba nga xam ne ne que liggéey rek moo donc li may dégg su may frère su may xarit su may am di jàmm nañu liggéey te bàyyi wax ji donc te xam ne ne que ku ñax rek jariñu c'est non njaal mi je je pense que warul nekk ci presse man vraiment bugguma ci sonn wax sax wax waaw man bëgguma cee wax parce que li nekk sama xol moom moom laa gën a bëgg que li jaam yàlla yi di gis parce que nit ñun ay nit lañ donc peut-être que ku nekk ngi génn wax wax wax wax mais dafa am leen loo xam ne ne ci nit ki lay ne leer na ma ni ma demee woon ak borom këram ak moom donc du loo xam ne ne que lu may wax ci presse la et sama yaay dee na sama baay dee na donc dama leen di ñaanal fa ñu tëdd yàlla jéggal leen seen i bàkkaar xare ci àjjana yi gën a kawe ku mel ni jaaga suñu sœur la woon man boroom këram moom sama xarit la woon donc bari na yu bari yoo xam ne ne que yuñ doon weccante en tant que te mat na ma papa donc je pense que li may def rek mooy ñaanal leen yàlla fa ñu tënt gënal leen fi ñu jóge parce que jour bi muy wàcc liggéey mu ngi fekk Paris vraiment ma ñaanal ko yàlla ci suma biir xol li ci des nag peut-être du nekk loo xam ne ne que c'est pas l'appel ñu koy wax ci presse mu mel ni ne que ñu bari nekk ci réseaux sociaux yi di wax ku ci nekk di ci yëy yàbbi pour une première fois aji ñu gis koo xam ne dafa ne moom du toog ci réseaux sociaux di wax ci jaaga wala ci coon mais da koy garder pour moom lu tax loolu waaw parce que peut-être loolu ça engage que man awma droit critiquer kenn bon peut li nekk man nekkul yow donc man moo tax jaam yàlla bu ne soo génnee àdduna je préfère que man ma wax ma ñaanal la te yàlla tax ci suma biir xol donc pas mu nekk ci télé wala écran wala yu demee noonu waaw donc su ma amee lu may def di la ko ñaanal ci ay xéewal kaamil je préfère que ma def ko sax sans autant sa famille xam ko donc man loolu laay dund quoi donc moo tax balaa meewu ma nag ñi nga xam ne ñu ngi koy def ci presse bi muy génn et ñu koy fësal mais man je préfère que ñaanal ko yàlla fa mu tëdd yàlla defal ko ci àjjana yi gën kawe ak li doon liggéey ci lu baax yàlla defal ko waaw waaw non mais mu muñ rek waaw mu muñ parce que waale xale la suñu doom la wax naa ko ko barki démb bi ma ko jaale jee bi ma jógee Paris ba ñëw jaale gi naa ko donc mu muñ xam nga ñun kenn du fi des sànq wax naa la ko nee naa la sama yaay dee na sama baay dee na donc euh, ñun ñëpp allah kulli na yéex am na ñu ñu gën a méttile xam am na loo xam ne ne que su ko wax donc am na ñoo xam ne ñun dañoo siiw ay nitu public lañ am na ñeen ñoo xam ne kenn xamu leen da xëy benn kër nga dugg fa ñaata nit wàcc fa donc moom nag la fi yàlla teg pourquoi man bëgguma sax presse di ma laaj ci Wally Seck kese dafa am ay mag am na ay lamin Naar am na ay rakam am na ay sërëm te ñooñu ñëpp dañ leen a war a masawu donc soo leen bëggee focus ci Wally Seck rek seen problème donc kon ñu ngi gis tollu ñu ngi gis non waaw ñu ngi gis tolluwaay bi mais waruñoo gis tolluwaay bi man kii topp ci sama taawu yaay am na soixante-dix ans su ma ñaanee gën gaa bari dix mille la may ñaan man dama naan kookoy sama sëriñ ki toog topp ci sama taaw papaay Babacar soixante-dix ans laa heure bu ma ñaanee su gën a bëri damay tuuri xéewal ñaari junne la may ñaan donc je pense que ne ne que waalee kii rakkam ak i doomi baayam ñëpp dañ leen a war a massaw ci sama gis-gis ñu yemale te xam ne li métti waali moom métti ñeneen ñi donte que waali moom mooy seen kilifa moo tax suñuy maas nit gi rek man pour man ci sama gis-gis il faut pas que ñu focus ci waali kese waali am na ay mag am na ay rakk am na ay sœur donc te ñooñu ñëpp ay nit ñu baax lañ nañ ñaanal ci génn àdduna yàlla xare ko àjjana ci barki yonent bi merci